العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديغ الشيخ محمد منتقى ميغا خامي مو في سيرن توبا تاي كاو سوف نيام مو ياغ في لوتا اند بير با مبولم سونغول ان نار وري جيم ام تي في ام كو تي يوني suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barke Sëriñ Tuubaa yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu cant ak i ko ci ganam bii di ñu ngi lay nuyu baax a dina sant di la gërëm di nuyu di soxna Mariam Faye nga xam ne ñoom tam Serigne bi xam ne yitteem ak taxawaayam ci moom ak jàppam ci lu yàgg ba tey xam naa dinaa ci dellu si ci kàddu yu ma yóbbante ci yow di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp te buñ la tuddee rek ñu mën a yóbbaale njëriñ si ndax bëgguma lim di fàtte waaye ñëpp itam di ay jàmbaar ci biir kër gi di jàmbaar ci seen digg ak sëriñ bi kenn desut kenn ku ci ne da ngi seq ak sëriñ bi rafet na bu baax a baax kon nag sëriñ bi xam na ne ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Touba. ci waajtaay bis bu tedd bi ñu jub si ngir nag sàmmanteeg fi àdduna toll ak fi waxtu wi ñoo tax ku ne xam na ne bi ñu wëndam daa demee ndax mënoo tere dara ba noppoo biir ko di ko woote te xam na ne xam na moo taxoon sëriñ bi yónnee ci kilifa yi nga xam ne ñëpp ay rakkam lañ ñu ci des ñëpp di ay doomam ñi ci des te ak ay taalibeem tamit Cheikh Serigne Touba yi xamal leen ne kat ren ni mu demee tax na moom bu fi toogee rek teewaale na fi njabootu Serigne Touba yëpp ñëpp itam ñu ci xam ne fépp fu Serigne bi nekk wala ko agsi ci moom ku ci ñoom ñëpp donte ne kenn ku ci ne yéen sa ndaw te Serigne bi itam xame na ko noonu rafetlu na ko bu baax a baax kon ñi ci nekk mënta tudd rek mën a yóbbaale yi ci des ñëpp mooy Serigne Issakha Mbacké ñi nga xam ne ñu ngi fi jotaay bi ak rakkam Serigne Abdou Fatah Mbacké Cheikh Mamadou Fadil ñu yóbbaale mboolem njabootu Serigne Touba gi fi teew gépp ñu mën a yóbbaale xam ne moom moo la yëkkati ngir ànd ko ak sëriñ bi mooy bis boo xam ne dafa rëy ci moom ndax lépp lu ñu am rek ci lañ ko am ndax bis bi bu Serigne Touba demutoon ci géej gi li mu ko waxee rek ñëpp dañoo tàbbi ci kéefar lislaam far kon nag dafa jot lislaam tax ñu moom suñu bopp kon bis bii lépp lu am ci lañ ko amee moo tax nag sëriñ bi fonk ko lool xam ne sëriñ Tuubaa moo ko santaane woon te daa ko jëfal bu fam lépp mu delloo ko ci yàlla wax ne na ko ci ñëpp sant yàlla ba mu nekkee ca liggéeyam bu tedd ba ca nattu ya la ko tàmbalee yéene waxtaan wax ne ka tegtu يوم السبت عند جلوى بعد الجهاد وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راد لينعد وساق لي أهراد فزت لدى جلوى وعند بأفلي بما جيء النور كل ما أفلي من المغرب متي وخال لي نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وقدم وهنا كفو بري بري كون لو ما بيش بيغي ci suñ suñu borom jeexal na tam yëpp mboolem lu mu amee ci ko amee kon nag Sëriñ Tuubaa ci jikko jikko suñu borom defal te mu wéet ca mooy la ko kenn ci euh, benn commandant de cercle bu nekkoon Jurbel mu bari xam ko mu tuddoon Antoine euh, Leselve euh, ci 1918 benn rapport bu am solo ñu bindoon ci Serigne Touba wax ci wax ju solo wax ne la de Cheikh Ahmad Bamba xutwatun euh, fitriya nee na Serigne Touba suñu borom defar na ko euh, xuba fitriya mais force boo xam ne kenn xamul fu mu jógee nee na itam topp gi ko nit ñi topp itam jéggi na dayoo ba kenn mënu ko misaal ci xel. nee na jural na leen itam lépp lu ñu leen digal ñu def ko te duñ ko te te duñ ca xalaat. mu ne si Ahmad Bamba mu nekk maa ngi seere ci moom ne eh, ñu mu jëkkoon di anbiya ak mursalin li mu màgg màgg ay li ñuy siiw siiw bu ñu dellu si waatoon dañuy ñeex Sëñ Tuubaa ci jikko yi ko yàlla defe na mais nag bokkoon na ci jikko yi rek mooy yéene ñëpp jàmm xaluwul ab soppi ak moom loola waral Sëñ Tuubaa bis bi nga xam ne ci lañ ko jël natt ko mu jël ñu jéggal naa sama noonu yëpp waa fawtu an il aadaai turan li uccimin nafaahum li xayri sarmadan las abtu ba noppi ñaanoon suñu borom itam ne ko bu ma tukkee boo ñibbisi xéewal yoo ma fa jële yëpp yàlla nga ko jële ko ci mboolem sama askan muy Sénégal gépp nga xam ne yemaloo ko ci ko yaakaar waaye képp kuy nekk Sénégal rek Serigne Touba fàggoo wàllu ci biir ñàng mu wax ne lii aw sili lesi uridu wan faxi bi yàlla war a yaa mu wax ne am kon loolu mooy bis bi nga ñëw kon sëriñ bi nee na ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa digal moom ndax loolu itam li ko waral euh, suñu euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xaddis ba ne al abdu lam yaskur nii maa lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadihi jaam bi sant ma li fi sant ko jaaware jaam jaaware jaarale xéewal gi ci moom kon nag nee na suñu borom ñi dogal moo leen boole. jëkk ngay ne ci jataay bi moom itam nekkagutoon ci jataay bi mu gis li am ci yaakaar am ci ak cofeel gis sa yar ak say teggin ak fonk gi nga ko fonk te bam na xamee ba liggéey itam gisutoon lu mas a soppiku ci loola ba yàlla def nag mu nekk jataayu Sëriñ Tuubaa bu nekk jataayu Sëriñ Tuubaa bi itam nee na sa yaakaar dolli ko ci moom nee na kon nag mu ngi lay sant di la gërëm di ko seere taalib yëpp ni nga ko waxee woon ci bi muy woote màggal gi wax ma ci lan ngeen lan ngeen ma ko sant rek li ma denc sama xol moo ko ëpp mosuñu moom jàmm mosuñu dara ci fitne du agsi ci moom loolu nag lépp lu ma ci moom ci ñaan ak taxawu ko dinaa ko def kon nag nee na sag cant sa diggante moom ndax li ko waral li tam nag ginnaaw bu cofee gi doxee diggante moom njabootu Sëriñ Tuubaa gi tam ak taalibe yi nee na waxtu wu ñu ngi lay yónni ci yow du la wax ay yitte yu jëm ci njaboot bi nee na bu sonoon nag ni muy doxalee sa diggam moom mooy dalay may may jàmm du la du la wax du la wax jënd soxna ndax bëgg nga mën a def sa liggéey kon lépp lu ñu yëkkati teg na ko rek ci yitte njaboot gi nag na loolu nag da koo sant nañ ndax moo fi bàyyi bu sonoon njabootam gën a ci xel ginnaaw lépp kenn du ci am dara fitna kenn ku ci ne la nga bëgg tam mu mu ci mën dana ko def mm-hmm. nee kon nag cant gi la ci jiitu. mooy mu lay sant ci njabootam gi lu ci ne nga def ca ba def ca lu mu dut kon loola nee na faaw cant gi mu béyoon ko ba ñoom ñu ngi ko seqal ñu xam ko kon nag nee na ñu ngi lay seere ne la mu la waxoon rek Serigne nga xam ne moom nga xam ne jëflante woo kenn ku moom moom li nga jëflanteel nag ne la wóor ne bu la fayee saxul dana sedd te lu weesu xam nga ko ci kon nee na na sam xel dal te sa yor rafet. ndax dëkk bi kat yëg ne sumb yu yi nga xam ne def nga am na ci ci lim waaye am na ci sax yoo xam ne fàtte nga ko lu mel ne trip 30 bi nga xam ne mat na 11 milliards ak assainissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne teew nañu waaye bu ñu toogoon di ko lim bari xëy na bu màggal yi jeexee ba ñuy leeral dañ ko gën a leeral waaye sëy bi lépp leer na ko sant na ci gërëm na ci kon ñooñu ñu ngi lay ñaan ci yàlla ci barke si Tuubaa suñu borom dolli la kàttan dolli la gër gën a leeral seen xel ba yéen ji nga xam ne am nga ko ci réew mi ak ni nga bëgg ànd ak ñoom liggéey suñu tubaab yi suñu borom dimbali la ba lépp